Basiiru sama àndu démb maa ngi lay nuyu di la ziyaare di am mbégte di am kontante ngir lii ñuy am ndax lii am say gone di la ko defal ñun ñoo la ko war a defal ñun waa LDR Yeesal ndax LDR Yeesal moom nga jëlee foo xam ni yóbbu ko foo xam ni kenn du ko jaawaleeti si biir département bi du jaajëfal jigéen ñi fi nekk ñëpp te di leen xamal ni leen lii ngeen defal président euh, Bassirou Gueye ñun la waroon ñun waa LDR Yeesal ndokk nag bi leen yàlla dimbalee ci seen xel mu rafet ngeen def ko defal ñu ko ñun ñii Bassirou sa frère sa leader président Modou Diagne Fada mi ngi lay nuyu di la jaajëfal fonk gu mu la fonk ak cër bu yëf ñor gu ko ñor moo tax mu yónni direction parti bi jiital ko Soxna sàll muy sunu présidente nationale teg si rakkam muy sëriñ Gassir euh, Galas Diagne teg si magam muy sëriñ Modou Fall kon loolu yëf yi ñor na ko kon bis bi ñor na ko ànd bi dafa dëgër. te dafa xam ni yow rakk am nga yaa ngi koy jàppale si biir Touba liggéey di ko liggéey liggéey bu rafet liggéey boobu nag nee na bis a ngi si ñëw bis a ngi si bis yi te lebal bis bis dina la ko fay nee na liggéey bi ñu ant di ko liggéey ñoo ngi lay ñaanal su ëllëgee si biir yàlla nga si am ndam di wax lu tuuti si Touba ak Mbàkke ak département bi ci contexte bi ñu toxlu muy politique la ñuy def di ànd ak président coalition bi le président Macky Sall mu moom mu nekk fii si Touba nekk taalibe di ànd ak ñun nekk taalibe Serigne Mountakha liggéey si Touba xam ni que kenn du ko laam-laamee ku gumba sax soo lambee di nga ko daj kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla kii mu ñu fi tegal di candidat am ñu war ko investir tey le candidat Amadou Ba ñoo ngi leen di tàllal loxo yéen département bi monde bi Moustapha ñoo ngi lay dénk commune Mbacké Serigne Mor Lo fédération bu Touba ñoo ngi leen koy dénk ñu gën see jàpp gën a liggéey pour que le frère Amadou Ba am ndam le président Amadou Ba am ndam le premier ministre Amadou Ba am ndam kon ñoo ngi leen di ñaanal di santaan ñëpp nag di gërëm ñëpp. un ami voilà un frère voilà un formateur voilà un incontournable ci échiquier politique bu Sénégal moo waral sama diggante ak moom bi lii amee te tey ku ne xam na ay xat-xat moo ko jax mais moom moo naroon a ñëwal boppam ci bis ndax waxtaan nañ ci ginnaaw bu ma ci jokkoo ak xaritam mais aussi rakam muy Galas Diagne ak mbooleem ni mu àndal ñëpp moo waral mu dépêché une très forte délégation mais ci bopp bi mu ni suma frère suma xarit Papis Diop na nga dem teewal ma fa Papis man mënoon na ma teewal fii représenté ma ci sama bis mais su boolee ñaar yëpp ñëw teew ngir sama jëm président Modou Diagne Fada boole ko ak la responsable nationale des femmes du LDR Yessal moom it mu jóge ba Dakar avec une très forte délégation muy Soxna Sall di door a génn ci congrès des congrès jàpp naa ni kon war ngeen a xam ni la président Modou Diagne Fada xam na seen bis bii ngeen ma doon sargal nu mu ko toll alors sama gars yi fii toll dama jàpp ni kenn ku ci nekk ci ñun war nga convoquer say responsabilité ci ëllëgi Sénégal kenn ku ne war nga convoquer say responsabilité ci ëllëgi Sénégal parce que tolluwuñu fu ñuy fale ab président de la République mais dañu toll fu ñuy tànne njiitu réew réew mu mel ni Sénégal fii ak ñetti weer ñeent pétrole gaz ak ressources naturelles ak minières yi fi nekk yépp mu war a nekk suñu njariñ ñu war ko jariñoo jàpp naa ne bu ñuy tànn war nañu tànn une personnalité boo xam ni dana xam moom lan mooy yor am réew yorum réew nag du man lañu fan du maa fi dàq solu du maa fi gën a boo du maa fi gën a jantal déedéet yorum réew responsabilité bu diis la te dafa mel ni nag Sénégal dañ koy bëgg a tàmbalee foowe bu kenn ni Macky Sall moo ñu tàndal candidat déedéet c'est la coalition bennoo Bokk Yaakaar moo tànn candidat ndax avant mu koy tànn dajale na chef de partie yépp au palais waxtaan ak ñoom ñu jox ko carte blanche mu dajale waat leen ñu joxaat ko carte blanche te ba mu leen di dajale y compris notre leader notre chef de partie le président Modou Diagne Fada kon tey la candidature du président Amadou Ba la coalition Benno Bokk Yaakaar moo ko porté te ñi nga xam ne ñoo ko porté le président Moustapha Niasse ku ne xam na son taxawaayam ci Sénégal le président Modou Diagne Fada n'en parlons pas Aminata Mbengue Ndiaye Babacar Ndiaye El Hadj Ndiaye ñoom ñëpp ku ne xam na seen taxawaay kon bu ñu nee kii moo ñu doy dama jàpp ni ñooñu xam nañ kan moo gën pour Sénégal te Sénégal dafa toll ci soxla stabilité. dafa toll ci soxla cohésion sociale dafa toll ci soxla paix te loolu benn nit kat moo koy incarné ci candidat yëpp je vous nomme le candidat Amadou Ba moo ko fi incarné kon bu loolu amee may bañ kenn détourné leen kenn defal leen lavage de cerveau kenn wax leen lu du dëgg ñun day waa Touba wala boog le département de Mbacké dama jàpp ni bu ñu doon fay naar xoromam su Macky Sall joxoñee am xar sax danañ ko topp ndax durant tout son mandat de 2012 ba fi ñuy waxee nii il ne cesse de poser des pierres il ne cesse de bâtir mais il ne cesse d'inaugurer te loolu lañ soxla ñun day waa ngiraa Ngiraneen kuy wax ñun bokkuñu ci ndax mbënn daf ñu daan sonal yaakaar naa ni programme d'urgence bi nga xam ni def na ko Touba Mor Lo mi témoin la ci parce que mu ngi ci commune bi benn programme 43 milliards Ngiraneen Kër Ñang Daaru Daaru Marnaan ñoom ñëpp ñu bénéficié wu ci kanaalu 9 kilomètres sur 8 hectares dama jàpp ni ñun dañu war a fay naar bi xoromam muy jàppale ko ci candidat bi ba projet yi nga xam ni am na ko pour war a continuer ñu tabax Sénégal mu mën ko àggali. le département de Mbacké reste le premier département du Sénégal te fii ak fukki at la nag parce que recensement par dix ans la am kon département bu toll noonu ak plus de Touba rek commune àgg na trois cent mille électeurs répartie entre six cent onze bureaux de vote kon dama jàpp ni foofu nag dara war na fa un département boo xam ni amul benn responsabilité boo xam ni kilifa yor nañ ko fi loolu moom metti na te li nga xam ni am nañu ko ci électorat bu ñu ko kenn xeebal ndax dañoo jóge woon ci vingt cinq pour cent dem ci trente pour cent dellu ci soixante sept pour cent wàccaat ba bëgg a laal vingt huit pour cent lan moo ko waral parce que les moyens restent ñu bëggoon ngeen jàppale ñu dooleel ba tey fii amatuñu kuñ fii jàkkaar lool et eh, Benno Bokk Yaakaar amatul kuñ fii jàkkaar lool te firnde ji li nga xam ni def nañ ko muy jël les clés du pale jox ko président Fada ne ko demal jox ko Amadou Ba ne ko LDR yeesal ànd ak parti politique yi nekk Touba yépp danañu fal Amadou Ba cela veut dire que ni kon fas yéene nañoo def remontada lu fi daan am danañ ko fi jële te danañ ko jox électorat boo xam ni bu ëllëgee bu peser sur la balance électorale du Sénégal danañu génn au premier tour te problème du am mouillons-nous le maillot défendons notre candidat érigeons-nous en bouclier pour qu'au soir des élections ñu mën a protéger suñu candidat ba kenn du dal ci kawam te am naa yaakaar ci ni Galas Papis ndaw ñi ne fii ak ñi ne ci département de Mbacké bii suñu taxawee ni Amadou Bala ku taxaw sa kaw ñu rend jéggi jàll moom amuñu ci santiment du ñu daw du ñu dellu ginnaaw tey incha allahu rabbi danañ ko jox une victoire éclatante au soir des élections ba mu xam ni la département de Mbacké lii la fi def. Bassirou dafa bëri li ma toog lépp lu lu ci feeñ mooy dafa am ay nit yu jóg di la sargal sargal mooy delloo nit njukkal nit nag bu deful dara kenn du ko njukkal kon am nga taxawaay bu tax. ay nit jóg di la delloo njukkal yow nga am humilité ñu lay delloo njukkal yow tamit ngay njukkalaat ay nit ñoo xam te bii xëy na da ngaa jaar ci ñoom ñu marqué la ba tax nga marqué waat seen tur tey ñu mën cee luñ suñu maam Serigne baara Doli ak monsieur le maire Iba Gueye suñ lay sargal di louer say qualité ak say valeur nga ñëw di sargalaat ay nit yow ça veut ça veut tout simplement dire que nit ku baax nga kon ñu ngi lay ñu ngi loolu marqué nañu trop ci bis bi tey le président Modou Diagne Fada bi ma ko woowee ne ko bu ma demee lu may wax dane ma du ma wax benn mot ndax yow yaa ne ma Basirou sa frère la vous êtes yéen ngi ànd di liggéey sa xarit la sa kon boo demee waxal lu la neex mais daal nee na ma Basirou bi mu ñëwee tey ci biir parti bi ak tey li vraiment les lignes bougent à donc loolu sa mérite la Fada li mu wax mooy am nga loyauté am nga conviction politique mais aussi yaa ngi bouger loo parti bi au niveau de Touba ak Mbacké département bi yëpp kon loolu li ma ci dolli mooy am nga leadership parce que leadership mooy nit koo xam bi xam na valeur nekk si moom mu koy incarner ba tax ay nit mën a jaar ci moom ngir dugg ci kuréel kuréel bi ñu nekk nag ñu partagé muy kuréel bi tudd LDR Yeesal président Modou Diagne Fada jiite ko ñu taxaw si moom tuuti ndax nit boo koy topp dañ la laaj lu tax nga war koo déterminer ci ñetti mbir mooy d'abord personalité moom muy nit ku am ko mu nit ku am euh, affection si nit ku am mën a am considération si doomu aadama beneen bi mooy mu nit kenn ëpp ko parcours ci réew mi sur le plan politique Fada bi muy intégré le PDS di jiite la section administrative au niveau de l'UCAD c'était en 1990 tey loolu au moins ça fait plus de 33 ans de militantisme mu am ci parcours boo xam te ne bii tey amul koo xam ne milité nga plus de 33 ans jiite responsabilité bu nekk kenn mun la tudd ci benn scandale que ce soit politique que ce soit administratif que ce soit social kon kooku sur le plan politique au niveau national kenn ëpp ko taxawaay. 33 ans de militantisme kenn mësul ko tuddal tache noire macha allah mu jiite tey un parti politique mooy ma ñëw ci kuréel gi kon parti politique buy incarner l'espoir parti politique la plus organisée au niveau national pourquoi je le dis ban parti tey moo fi organiser régulièrement la réunion de ses instances le bureau politique le comité directeur et récemment le congrès pour def le choix sur le candidat Amadou Ba kon kooku ñett yi nga xam te ni moom la ñuy toppee nit mi ngi si moom muy valeur intrinsèque yi nekk si moom parcours am mooy jaar fi mu jaar ba egsi fi mu egsi ak kuréel gi nga xam te ni bi ci lay wóor nit ñi kon le président le parti LDR Yeesal ak ki ko am na rayonnement boo xam te ni tey ñëpp war nañoo mën a topp ko ci yi muy def mu joxoon ñu le président le ministre le premier ministre Amadou Ba bi incarne la continuité et le changement en même temps loolu la nit ñu bëri xamul continuité bi ko ko incarné ba pare ci biir changement tout simplement parce que li Macky Sall incarné de 2012 à maintenant am na loo xamante ni bii baax na daf koy continuer mais il va amener des changement pour gën a développer réew mi kon soit bu baax la Modou Diagne nit nag booy ànd ak kilifa sëñ Abdoulaye day wax ni kilifa booy ànd ak moom da nga koy bàyyee boppam te bàyyee ko sa bopp joxoon nañu le président Amadou Ba on va mouiller le maillot comme ni nga ko waxee liggéey pour le rayonnement du parti d'abord à Mbacké ensuite pour la victoire du du candidat Amadou Ba dans tout le département de Mbacké